sëriñ Babacar jugal taxaw lay lay jodeyri ku bëgg sëriñ Babacar jugal taxaw lay lay jodeyri ku sopp sëriñ Babacar jugal taxaw lay lay jodeyri ku sopp sëriñ Babacar jugal taxaw lay lay jodeyri ku dugg taxaw yamal xiyam doo fa taxaw lay lay jodeyri ku dugg taxaw yamal xiyam doo fa taxaw doo fa taxaw ay Maodo Malick jàng bare nga lay lay jodeyri ay Maodo Malick jàng bare dig tàngu bare na lay lay jare baga sol bi du la kala tàngaay cundu la baayu Baabakar bagi Abdu waalo waalo be Seydi Haaji Malik jàngu bare na lay lay jare ay Mawdo Malik jàngu bare na lay lay jare baju sikkar la woolu dollu na bar Cheikhu Tijaan ma Mawdo fii la rawe gaañu ba tey kenn dabu ko àdduna na dikkal ee kañu dem ngeen jëm ca ma Mawdo day dawal dalu taxa maam Maodo dawal gaalu texa ga ku ju duggul ñu dem ay maam Maodo dawal gaalu texa ga ku ju duggul ñu dem ay maam Maodo dawal génération oustaz Oumar Khayra mooy pendal moo yor waañu Seydi Mbay est-ce que assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi fi daje ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi samahat cheikh omar si ibnu cheikh al allaama cheikh malik si abdul aziz alhaaji malik si nafaana allahu bi barakaati nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom la ànd ak jóge ci xadara bu sell ba ñëw fii tey ci dëkku maamam ci dëkkam ci ay taalibeem ci ay soppeem fii ci muy mu mel ni dana wax ne dañuy gàmmu kon yàlla yàlla fayal ñu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy ndax kat moom moo waxoon ala azimu te xam ngeen ne ndigal la joxe ne nanu tàntal rasulullahi yàlla dimbale ñu tey fii ci muy ñu topp ndigalal sunu sëriñ ak sunu yaakaar tànt di jéem a takk rasulullahi sallallahu alayhi wa mu mel ne kon am na lu ñu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy yéene ndax mag bu amee njabootam fa mu jaar ba mucc dafay jaarale njabootam ndax gis ngeen Cheikh Seydil Hadji Malick li mu liggéey ci tasawuf li mu liggéey ci jàngale li mu def ci jaamu yàlla fi mu jaar liggéey liggéey liggéey ba nitu yàlla yi jamonoom yépp seereel ne ku mel ne Seex Seydi Hajj Malick ci ragal yàlla amut ñu seereel ko ku déggoo ak boroomam juboo ak boroomam jël jaam yi taalibe yi tarxii leen tarbii leen yéege leen yóbbu leen ca yàlla tabax ay jàkka tabax ay juma lépp lu nitu yàlla di def ci lu baax Cheikh Seydi Hadji Malick def ko ba ñépp yaakaar na Cheikh Seydi Hadji Malick wàcc na mu toog ci benn ruq ne li ma def nit ñi di ko yéem naan baax na ak leer Maodo daal daal di toog fi mu toog ne wa laysa lii amalun alqaaka yaa amali bu leen way siwal mahabbati wa taazimi wa salami kon dëkk bu bu nu toll ku yàlla dogal nga bokk ca mag mu toll Cheikh Seydi Hadj Malick ak njabootam ñu bokk ca jàpp ca ñu ànd ak Serigne Maodo lii ngir xam ne ab liggéeyam la tant bii tey suñ ko mënee am alaaji Badou moo ànd ak i mag ak i magam ak i baayam ak i nijaayam ñu tàllal ko loxo ne ko si jumaa ji yegg na dañu bëgg am ndigal ci gàmm mu ne am ngeen ci ndigal te bu ngeen jaaree fi ngeen waree jaar day yomb léegi nag loolu li muy wund mooy nanu xoolaat gàmmu gi niñ koy jàppee nanu àndaat ni nu war a àndee nanu jàppalente ni nu war a jàppalante gis nga ñii dafa am nooy mel ñu mën a ànd ak yow am na nooy mel dañ la naa fi ñukk dem seeti kuy dem ñu ànd ak ñoom comme nag am nañ sens am départ ba Cheikh Seydi Hadji Malick Maodo jël xelam yëpp ak ñaanam yëpp ak yaakaaram yëpp di ñuy gunge façon bi mu ñuy gunge jël doomam ju yaru ji nga xam ne mag ñëpp ñoo seede ak yaroom ak tegginam ak xam-xamam ak mbaaxam ak yiwam mu jël ko séddi ko waa muy ngelawaay sargal leen Cheikh Seydi Hadji Malick sargal leen Cheikh Seydi Hadji Malick te yenn nguur nguur yu sewu sewaan yii ñu ba ko lenn rek laay jeexal sama wax am na xadara boo xam ne ku fa nekk soo moytuwul li ngay wax yaakaar ne da ngay yàq tànt bi tànt bi du yàqu yow yaay yàqu parce que wënuyu nitu yàlla du samp ab sampam ku mel ne man sàggan ba am nenn nu muy defee ba lool di yàqu balaa loolaa yàqu yow yaa yàqu Cheikh Alhaji Omar dama doon ubbi rek gisuloo ma téye benn kaat kayit xam nga li ma sa bàyyi yare man moom laa yaakaar mooy sama sëriñ moo ma defal lépp dootu mukk mu jox la message ma taxaw naan damay conférence ci sa kanam dama doon wax rek ne ñun taalibe yi lii ñu sa waajur defal xam ko moom moo ñuy jëriñ waaye ñàkk koo xam danañu lor yóbbante bi nag ngeen gën a ñaanal alaaji Badara ndax bi ci guddi magam Amady Diagne mi nga xam ne man su ma taxawee fii tey ci tànt di fi wax lu nu mel moom ak mag mu mel ne Jégaani Njaay ak Biram Njaay ñooñu ànd ànd cew sa way jur joxoñ ko badu mii nekk moom la mag ñi wóolu moom la mag ñi yaakaar mën na am fum mu yóbbu dëkk bi ak gàmmu gi nee na fi du jaar bu fi wàccut dina arrive kon ngeen ñaanal ko yàlla mu bañ koo wàcc waaye ngeen ñaanal aussi daayira bi ak ndaw ñi ak mag ñi ñu jàppale ko te yàlla tax aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazima li wa lakum aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaddu gi may yëkkati itam maa ngi koy yëkkati ji sama mag alxaaji Malick Kan mi yàlla teg fii ci bopp jumaa ji muy imam bi nga xamante ni ne mooy taxaw ci wàllu diine fa tabaarakallaahu ñuy jéem di ko uutu ci wax ndax mbooloo mi dañ ma yëkkati daf ma seen porte parole nekkal leen li may wax wér na Mbaye Sarr mi chargé ma loo xamante ni ne maay dox sama digganteeg ñoom ak wàllu diine ji yàgg naa ñoom muy sama baay fi la bokk motul may wax sama bopp du ma wax ci sama bopp du ko def xam nañ ñu waaye dafa tabaarakallaahu di gërëm mboolem ku fi teew di leen sant di leen wax bismillahi fii ci muy di leen xamal doomi muy day ñi ngi sant yàlla lanta mbir mi nekke ci loxoy Alioune Badara am na ci loxo yum nekkoon ci ay mag suñ baay gàddi jàng mi ngi fi chaque année lii ma taxaw di wax maa ngi koy fàttaliku ba muy gën tuuti moo taxawoon di yor kàddu dëkk bi di dalal gan ñi di wax tey ba mu demee ba xam ni am na doom doom yu ko mën a wuutu ci taxawaay moo tax ñu dégager seen responsabilité ñëw di di encadrer suñ baay jëng kazalika suñ tonto amari jëng kazalika ñoom ñëpp ñooy suñuy mag suñuy waajur fi deseen yi xool ci seen mag yi leen jiitu woon ñu taxaw taxawaay boobee jiital Alioune Badara teewul ñàkkul mi ngi nekk direct ak ñi nekk Dakar ku ci mel ne suñ tonto amari jëng dara du ko ëmb kon ci seen kaddu la ñuy waxee mboolem ku fi agsi ñi ngi leen di xamal ne agsi ngeen fi ngeen war a agsi wuy si ngeen ci woote bi nga xamante ni ne fa tabarakallahu suñu sëriñ def na ci ñaan mooy ahaaji malik mawdo te alquran wax ni ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum e eh, tant bu mel nii en tout cas man en tant que autorité locale su ma sañoon day am fu ne ci biir commune bi parce que gis naa ne wax dëgg yàlla eh, diine rek lañ fi wax gis naa ne aussi luy tax gox jëm ci kanam donc su ma sañoon également lii di am ci yenn keppaaru commune bi donc di rafetlu aussi euh, population yu muy population yu Thiasde et ni nga xam ne moom lañ jàppee ci bés bi parce que gis naa ne même daara euh, am na lu ma ci découvrir lu bëri surtout seen mbokk yi nga xam ne dañ nekk daara parce que lay wane ne muy dëkku cosaan la am na sax ñoo xam ne Dakar la ñuy jógee wala Linguère loolu lépp day wane ne ñoom ñëpp fii lañ fekk baax te lii dafa baax des fois ngay ñëwaat ci sa dëkk cosaan ci say dëkku maam donc en tout cas lu am importance la en tant que autorité dama koy rafetlu ni ngeen jàppee ci seen dëkk donc loolu yàlla na yàgg euh, leneen li xanaa ñu ñaanal badu euh, gis nañ ne aussi gàmm gi wax dëgg yàlla am na fu mu ko yóbbu parce que en tout cas ñun ci biir commune Kam euh, gàmm muy bokk na ci événement religieux yi gën a am importance donc loolu aussi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax Eh, leneen li ma leen di ñaan rek que beneen yoone yéen ak mbay Thiass de ngeen waxtaan pour que bés bi wa bañee nekk benn parce que def naa ne dëkk yi benn lañ eh, su su nekkee benn rek en tout cas dana am ñoo xam ne danañ ci xaw a sonn tuuti ngeen jéggal ma eh, su loolu paasee ñoo ngi nuyu bépp nit boo xam ne ñëw nga fi ñu ngi leen di sant gis nañ seen taxawaay gis ngeen cofeel bi ngeen am ci muy Eh, li may wax du bëri peut-être père Sidel su ñëwee moom dana ci wax li may wax rek mooy que ngeen ñaanal seen doom seen jarbaat le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye yéen ñëpp gis ngeen confiance bi nga xam ne président am na ko ci moom eh, liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko ci élection yi jàll ba président félicité ko devant tout le monde devant tout le Sénégal su loolu passé également ngeen ñaanal président de la république son excellence makisal pour que mandat bi ñu dégmal et mu gën ci ñun mu gën mandat bi nga xam ne sax moom la ñu génn te am nañ ci yaakaar parce que def naa ne ñun en tout cas ci wàllu commune bu Kamb am na luñ ci jot te yaakaar naa ne aussi ba léegi e, sunu yaakaar mi ngi ci moom e, su loolu passé e, def naa ne wax ji jarul guddal Euh, ay kilifa ñi ngi fi toog te mi ngi bëgg guddi eh, damay remercier rek population bu commune bu Kam def naa ne tey kenn desul waxuma la aussi département de Linguère def naa Sénégal yëpp ñi ngi fi loolu nag lu ko waral mooy muy te gis naa ne dëkk cosaan la dëkk la boo xam ne aussi vraiment euh, li fi maam yi bay woon euh, ba léegi moo fi nekk te gis naa ne aussi yéen a ngi ci jàpp bu baax a baax donc man aussi lii dama koy rafetlu en tant que autorité euh, di wax ne aussi sous-préfet bu Yaya abu Mangane amoon na yéene trop ñëw fekkee ci bés bi mais à la dernière minute dafa am empêchement looloo tax ñëwul loolu aussi daf ne ma woon su ma ñëwee naa ko jotli kàddu googu euh, loolu la amoon lu may wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp am neena fa nahnu inda al baabi ya sayyid al wara بجايكم نرجو الشفاعة في العصر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في حالة الضيق والعسر بارك الله moom daal maam Abdou ne góor yàlla yi ngay gis yëpp moo xam ci martabul nujaba moo xam awliya moo xam al aqtab moom daal ku la raw ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam fala la rawee moo tax gars yi ay waay nañu sopp yonent bi ne Seydi Hadji Mouhamadou Mansour radiyallahu taala wax na ni nit ku nekk bëgg nga barke bëgg nga barke nit ku nekk bëgg nga sécurité nit ku nekk bëgg nga ràngo ci ay leer ba doo rafle suñu maam Mansour nee na ku bëgg kóolute sopp yonent bi la ku bëgg sécurité waaye soppal yonent bi ku bëgg barke soppal yonent bi ku bëgg solu ay leer ba doo rafle sopp ko moo tax mu ni mahabbatuhu am yum nun wa am nun ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا مكم جلوف نينا محبتو يمنون ne sopp yonent bi mooy barke yumnun wa amnun mu ni sopp yonent bi mooy sécurité wa rahmat ne li tax muy sécurité ne maam Seydi Hadji Malick wax nañu ko huwa al murtada huwa al murtaja yawma yasiibu nawaasiya allahu akbar ne bis bi nga xamante ni yawma yafiru maru min aqihi min abihi wa ummihi wa abihi wa saahibati wa banii yonent bu ñu dem. yonent bu ñu dem. mu sëgg mu sëgg. ñu dem ci moom ñu dem ci moom. ni ko ñaan ñu safaa ni ko ñaan mu ne loolu nag du samay mbir. ci Adama Nuux Ibrahim Moussa ku ci ne. ñu ne ku ko moom. moo di sang bi sallallahu alayhi wa sallam. ne ñu dem ca sang ba mu wax la ñu wax ñu wax la ñu wax ak moom ñaan ko ni ko taxawaay bi métti na te yow dong yaa ñu mën a sauver mu bëgg a julli yàlla ni ko julli jeex na ni ko laajal ma jox la sallallahu alayhi wa sallam nee moo tax فتلقى آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات فتاب عليه فتاب عليه أي كلمات أي كلمات ne Adama alayhi salaam. te moom mooy Abul Bachar. ba mu amee njuumte ba juum. ba mu amee njuumte ba juum. ba yàlla indi ko kaw suuf. ba yàlla indi ko kaw suuf. façon jaamu yàlla bu ne def na ko. façon jaamu yàlla bu ne def na ko. façon tur bu ne wedd na ko. façon tur bu ne ko. waaye ci ban tur ko yàlla jéggale. waaye ci ban la ko yàlla jéggale. fatalaqa aadama min rabbihi kalimaatin fataaba alayhi la ko may nag moo di kan barki sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ba ruux gi duggee ci boppam yàlla ne na fii fii daa nafas fii min ruuxi fa xaw lahu saajidiina ba ruux ga ñëwee gis na ne aras yëpp lañ ci bind moo di laa ilaha illa allah sayidana muhammadu rasulullah ne ca la xeloo maam aadama ñëwaat mu ne yàlla tur bi muy jël di ko lëkkale ak turam waaye kooku ku yàlla fonk la ba mu waxee loolu ca la ko yàlla jéggal waaye sang bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy taxeel xeetam lépp luy tax xeetam sobe moom jox nañu ko lépp luy tax liy am sànjeefu suñu borom tere nañu ko xadis bi lam ñu fo moo di yéen sama njaboot yéen sama xeet na ngeen moytandiku lu ñuy wax ñaaw njort mu ni fen bi gën a foor ci fen yi mooy ñaaw njort dama ko foogoon dama ko yaakaaroon waaw foo ko teg mu ne kon mbokk yi nañuy rafet njort fu ñu toll ci suñu bopp bu ñu nekk nag di yëddoonte ci suñu biir nit ku nekk la nga bëgg a xam la ci biir këram nga bëgg xam la ci biir këram yenn saa yi nga ñëw rek ni ko waaw soxna si man daal dama laa seet si woon waaye ci koñ bi laa dëkk dama laa gis danga ngaa sonn lool mbaa sa jëkkër dina la taxaw waaye ku la ko laaj loo waaye yow tee ngaa dem gérer sa bopp nee bu la nangule nag ba jox la noppam nga ne nga ah, góor ñi de nangam ak nangam fekk moom moomu lay wax nag la muy daj la nga am yow kaar ba séenu ko lay wax la koy waral moo di lan wala taxaasadu daf la iñaane li nga am ñëw di la yëddu pour yàqal la ko mu ni wala tabaaxadu bu leen bañante jullit dafa war a bëgg mbokkum jullitam ne sallallahu alayhi wa sallam daf ne al innama almuslimuuna fi tawaaduhim wa taraaxumihim kama sali aljasadi alwaxid ida shtaka minhu udun tadaaca lahu saaira aljasadi bisahri walxuma ne baaraam ak bët sore nañu waaye baaraam bu fakastaloo mbaa bu taab li ci yoon bët ba bët du nelaw soo leen nañu de bennoo rek nee moo tax sang bi ni jullit ñi noonu la ñu war a mel ku ci nekk lii sa tiis waaye na ko ñëpp bokk ak yow lii sa bànneex na ko ñëpp bokk ak yow moo tax mu ni foofu wala tabaaxadu bu leen bañante su nee bu leen bañante la nga cay dégg mooy bëggante leen wala tadaabaru bu leen wanante gannaaw bu leen foñante mu ñëw nag ba ci fin bi hadis bi gudd na mu mel ne ko waaw kuy jullit mu ni jullit de du tooñ mbokk jullitam jullit du toroxal mbokkum jullitam wa qawlu maarufun xayru min sadaqati yat bawa azar waaw sa mbokk ñëw na ci yow xëy na soxla na ci yow ndimbal waaye waaye soo ko mënee dimbali ngir yàlla alquran nee na defal soo ko mënul may ko sax ndox mu sedd mu naan moo ma gën a nga jox ko ba pare mu génn nga naan sa booxul ma la ak mën a laaj waaye waaye bu ci loolu na ree am waaye wax ko wax ju rafet rek te bàyyi ko mu dem sang bi sallallahu alayhi wasallam ni julli tamit du toroxal mbokkum julli tamit bi nee na mooy doomu aadama di xeeb sa mbokkum jullit waxuma la sax jullit waaye fonkal ñëpp toppatool naa suñu maam yu tedd maam Fàllu Mbàkke bisam bi agsi na muy kësu rajab moo daan wax naan sang bi dañu lay mëni cëb seetal loolu euh, euh, euh, ne isra bi ne sang bi dañu lay dem moo mu ni cëpp wàcc moom seetal loolu rek sang bi jëm asamaan moo mu ni cëpp jëm suuf waaw akbar ne ci rafetaayam bañ a xat xat ñàkk xatal. ak ñàkk gu mu ñàkk xatal. nettali nañ ni. nettali nañ ni. pour rek fonk doomu aadama yëpp. pour rek fonk doomu aadama yëpp. ne benn bis dafa am benn néew bu ñu yóbbu. ne kooka catholique la woon. catholique moom seeni néew dañu koy sañ seel deful ko fleur ba mu rafet. yenn saa yi sax ñu def ci ay musique sax ànd ak moom. ne bi ñu rombee leen néew bi. sëñ Fallou radiyallahu anhu daal ni waaye néew bi moom rafet na kat mais mbokk bi ci wetam daal ni ko sëñ bi kii catholique la mu ne ah moo tax kuy dem àjjana day rafet seetal loolu rek nee yaatal googu mu yaatal kee moom maanaam catholique la maanaam du nitu àjjana sëñ Fallou ci yaatalam mu nitu àjjana waaye dafay rafet waay la mu ca dégg moom moo yàlla def ne inna allaha binnaasi waxul bil bi waxul bil muslimina waxul bil yahudi waxul bin nasara binnaasi la raufur rahim ñépp la yàlla di yërëm waaye waaye bokki bu ñu xatal yëf yi nag nañu yaatal tabaarakallah ne yàlla bëggul ko xatal sang bi bëggul ko xatal nee nag di sant bu baax mbokk yi fi teew yëpp xaritu xaaji badara yi fi teew yëpp xaritu démba yi ak tey ñi ngi fi yàlla na leen yàlla fay yiw ñi nga xam ne ñëwuñu sunu soppe yooyu tabaarakallaa ku mel ne sunu soppe yooyu tabaarakallaa ay ati at ñi ngi ñëw di ko teewe si fii ay ati at ñi ngi ñëw di ko teewe si fii muy pape ak muy pape ak cheikh nga xamante ni daan nañ am at yu bëri ñoo bokk teewandoo fii nga xam ni waaw at yu bëri ñoo daan teewandoo fii ñëw ñu nag waaye seeni soxna ñëw nañu waaye seeni soxna ñëw nañu yal na yàlla fay leen yàlla dooli barke ak jiw bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ne ñu ngi leen di gërëm di leen bége tabaarakallaahu yéen soxna yu tedd yi yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla yokk seen teraanga te dëgg-dëgg seen doona ci lislaam ñépp jàng nañu Sidna Xadiija ni meloon radiyallaahu anha ñépp xam na Sidna Aysa ni mel Sidna Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam zaati ni taaqay ni ci asmaaw yi asmaaw bintu Abubakar tabaarakallaahu ci taxawu diine ak taxawu lislaam ak taxawu seen borom kër ak taxawu seeni borom kër mooy seen ndono ci lislaam tabaarakallaahu yàlla na leen yàlla fay yiw bi jaayi sayyidina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam xéewal yëpp mat na yëfi njaayeen yëfi jóobeen yëpp mat na tabaarakallaahu ñu leen di sant di leen gërëm tabaarakallaahu di sant bu baax waaye suñu mbokk yi taxaw san borom caméra yi di leen sant nag ci kaddu xaaji badara mi yéen daal yéen seen mission mooy fa yu balliq shaahid la sang bi salaa sala waxoon te xajjatul widaa ni yéen ñi teew waaye waaye na jotal na jotalee message ñi loolu nag mooy seen mission yéen ñi yàlla na leen yàlla fa yiw yàlla dolli barkeel taxawaay yëpp ne moo xam RTS la moo xam 2STV moo xam TFM la moo xam tele daara la bàyyiwuñu kenn tabaarakallaahu waaye jeunes yi nga xam ñooy xale yi nekkoon ci tant bi jàpp liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di waa muy daal ñi ngi sant ñëpp dëkk dëkkaat yi ñëw daayira yi ñëw fu ñu jóge yàlla gis na sa xol yàlla na yàlla fay te am nañ yaakaar ne yàlla dina leen fay ndaxte ku ci nekk bi ngay ñëw muy ñëwoo ni maa ngi dem ne gendarme yi tamit seen taxawaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci wàllu sécurité tabarakallah mu nekk na koor bu noobu yàlla na leen yàlla fay yiw ku ci nekk bi ngay ñëw yàlla kese moo tax nga ñëw yàlla mi tax nga ñëw yàlla na yàlla wuutu fay ñu leen tabaarakallaahu di sant nag xaaji badara bu baax bëgg ko nag waaye nag ku def suñu maam si abdul ahad mbàkke nee na daana wax naan mu ni jërëjëf mbaat su gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg waaw kon xaaji Badara jërëjëf ak ñi lay jàppale ñëpp ne ndaxte dañu benn loxo du tàccu de ku dul yàlla ku ne soxla nga ku la dimbali ku dul yàlla ku ne soxla nga ku la taxaw yàlla na yàlla doole laa taxaw taxaw waa daayira bi yëpp góor ak jigéen mag ndaw lii lépp nag yaa ngi koy def ngir sang bi yonent bi nag salaa ku ko lebal ker mu fay la guddi waaw waaw dootoo génn ker bu yàlla na yàlla yokk teraanga yi yàlla yàlla barkeel néegu sëy yàlla na yàlla saafara tawaj fanu gudd nee ca taabal jee di tagg yonent bi salaa salaam waaye waaye Chérif Cheikh Oumar nee na mi ngi leen di nuyu di leen gërëm di sant xaaji Habib Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm oustaz Omar Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm Omar Seck xaaji Omar Seck ñu ngi koy gërëm. di leen siyaare te di leen balu àq di yëkkati nag suma kàddu ci ni mu ko waxee di ko waxee ci tuuru kii ñuy wax sëriñ Mbacke. nekkut sax ab délégation boo xam te ne bii dafa ñëw nekk ab invité waaye dafa nekk koo xam ne kii dafa war a ñëw dalal ñi fi ñëw te nekki gan te itam bu dul lii dafa di xëj na fee ci nga xam ne mooy néegu yàlla ba ñépp képp kuy jullit bokk nga ca néeg ba wante dafa am kenn koo xam ne mooy imam mooy jiite ñépp li ma bëgg a wax foofu moo di mbir mi jolof mbir mi muy la xewee waaye jolofa woote mbir mi dafa jaar ci loxo yi Alioune Badara njaay mii waaye ci loxo yi waa jolof yépp la jaar te itam dafa wax léegi sax ne euh, Maguette Ndiaye doomu dafa juum ci wax bi ma di ko wax sax ne kooko boo ko waxee muy waajur wi bu dun mag ngi cosaanoo muy dun ko xam waaye ibra tabara njaay maay caatu ibra tabara njaay ma ne ko foofa sori na dama defe ne dem ba njaay bu taxawee fii ci muñ dara xew fi muy wax kenn du ne ji dem ba njaay dañu naan dem demba njaay mooy wax mboolem ñi fi teew ahlan wa sahlan dal leen ak jàmm ndaxte dem Demba Njaay mooy muñ te man maa ngi wax ci turu Alaaji Demba Njaay maa may caatu Ibra Tabara dem ma Njaay mooy suma mag te mën naa ne mooy suma baay kii nga xam ne moo di Sëriñ Mbàkke ñuy wax dafa mel ne dama ne Sénégal gii boo ci génnee lépp luy yëngu ci wàllu diine génn ca kër maam maaram ak kër maam Ousmane bu dee mbaar mbaar ma benn wet lay taxawee te Sëriñ Mbàkke kii di sëñ Mbàkke dikk taxaw fii sëñ Abdou Mbàkke mi ko jur sëñ ci njakala fii la daa ñëw ci muy def fi deux semaine kon nag dama ne xaadimu rasool ak alaaji Malick ñoo daje fii ci muy kon nag loolu bu amee dan naan alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ko waxe am nu ko wax léegi ne ñaan du doy waaye ba ñu ñaanee du tey alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngeen baal ñu am mbokki muy mbokki jolof mbokki jullit yi yéen ñépp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam e, maa ngi jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni moom mooy setu sallallahu alayhi wa sallam Chérif ay dara maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal waaye di sàkku ñaan gannaaw loolu maa ngi nuyu kilifa diine yi nga xam ni ñoom ñoo fi teew tey su loolu paase e, Aliou Badara monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mu ngi lay nuyu yow ak ñi nga xam ni ñoo la jàppale ba bés bi mel ni nee na kontaan na lool ci waa muy waa muy nag am na ñu bari ñu wax nañ leen ñaan nañu nañ ñaan ñaan de du du doy xam naa ne waaye muy moom waxoon naa ko fi bu dul daaw muy daaw jeeg ne woon naa ñun ñi fi juddoo ci tund wi ñu nekk fi boobu ba tey ñun leer nañ ne muy ñaanal nañ ko te ñaan bi nangu na loolu man xam naa ko ndax su fekkente ni bi ñu nekkee xale doon joge daara jaar fi ci yoon wi ba dem mbay aw ba dem wiidu ci ngooy ci kooyaa bi buñ fi ñëwee tey ñu xam ne ñaan bu nangu dégg dégg dégg moo fi am yàlla na ko yàlla yokk eh, ministre bi nag nee na mu ngi leen di gërëm yéen waa muy nee na mu ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñoo doon daje fi daaw jéeg ba daaw ñu di leen di sakku ñaan di naan ñaanal leen ministre bi ñaanal leen Macky Sall ñaanal leen Sénégal nee na leer na ko ne ñaan yooyu de yàlla nangu na ko kon mu ngi leen di gërëm di leen sant ndax biñ daan ñëw fi dañ daan wax ñaanal leen ministre bi ndax mu àggalee yéen bi ko Macky Sall yéen ñaanal leen président Macky Sall ndax mu àggalee yéen bi ko sénégalais yi yéen waaye defe naa ne ku fekkee li fi jaar ren nga ñëw ñu toog fii tey nga xam ne li ngeen doon ñaan yàlla nangu na ko kon ñu ngi leen di gërëm yàlla na ngeen fi yàgg ñaan euh, maa ngi nuyu ñoo xam ne ñi xàmme naa leen fi te xam naa ne waa muy lañu ku ci mel ni yóbba jóg yóbba jiggo mais toog li may naan bi ñu nekkee fi ay xale moom xam na ne li ma wax am na waaye nag badu wax dëgg yàlla boo amee ñaanu sëriñ yi nga am soo waay jur yi ñu xam yàlla mun na la may lii nga fekke ko ñëpp ñaanal ñëpp toog soo gànnaaw ci soo kanam ñu fekkee soo njëriñ ndax eh, eh, sa pap moo ñu yar soo yaay moo ñu yar ñu baax lañu ñu yéeyoo lii lañu li am fi ñu fekke ko kon loolu sant nañu ci yàlla li nga ne li nga leen ñaanal fi léegi yàlla na ko yàlla nangu e, su loolu paase xam naa ne newoon nañu sax kàddu yi nañ leen gàttal waaye wax dëgg yàlla man de dama kontaan lool lool lool lool su ma ko guddalee sax ngeen jéggal ma ngeen baal ma e, li ngeen fi wax nag dégg nañ ko li waa Thiès wax yaakaar nañ su leen nee mandat Macky Sall bii bi paase dafa am lu mu compoon rek lu mu commencé woon yàlla may na ko yeneen juróomi at li mu fi def dina ko yokk dinañ ko ko wax te yàlla xam na ne xam na ko ndax xam naa ni seen maire bi toog xaale boo xam ne bi jàngana maandu na xam na lu xew même suñ ko waxutoon moom am na yu muy bind am na fu muy jaar li fi war yépp bu soobee yàlla danañ ko am ci mandat président Macky Sall bi nga xam ni dugg nañ ko euh, poste de santé léegi kay loolu jaaratul ñaan loolu obligatoire la fii ci muy kuy dajale lii ak li nekk ci biir dëkk bi nga nekk ak ñoom ñaari fan ñetti fan wax dëgg yàlla loolu du li ñu nekk ay politiciens moo tax ñu di ñu ko yóbbante même suñ ko waxutoon ñun danañ ko wax ndax yàlla def na sax ñun fii lañ bokk kon danañ ko wax danañ ko topp yàlla nañ fekkee njëriñ li ayaa ayyuhal ixwaanu jox leen ma seeni xol te déglu ma tuut xaw mi ma wax leen lu leen defal ayaa sayidi ku sopp sayidina Muhammad defal nii هو الوتد ما يضل بذلي يمن بلا من وينفي المعاصي الحاج منصور نينا هو المنتهى مجدا وفخرا وسودا ينتي الله محمد هو المرتجى يوما يشيب نواسيا asalaamaaleykum mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell nuyoo bi gën a tedd muy baatu salaam di baatu jàmm may ñaan yàlla yàlla defal ñu ko maa ngi sant sama ñaari waajur di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, di sant mbooloo mi fi teew yépp di dellu nag di santaat yàlla bi ñu mayee ñu fekkewaat bés bi tey ñi ngi nag jiital sunu nuyoo ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di le président Macky Sall di ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla di ko féliciter ci li nga xam ne moom lañ jóge bërki démb yàggul te yàlla tegaat ko ci boppu réew mi pour juróomi at ci kanam ñuy ñaan yàlla mu may ko kàttan euh, ak moom ñi nga xam ak ñi mu àndal ñépp ci gouvernement bi euh, yàlla may leen xel ak kàttan ak ki moyens yoo xam ne yéen danañ yëggale seen liggéey yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def loolu nag dañ koy jël teg ko si loxol ki nga xam ne mooy sunu ministre ministre Aly Ngouille Ndiaye euh, kenn umpalewul ne fii la bokk ci muy euh, waaye moom dafa mën naa wax ne jolof gépp la bokk ndaxte jolof gépp la bëgg Euh, monsieur le ministre Aly Ngouille njaay ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla moom itamit di ko félicité ndaxte dafa am ñaar yoo xam ne yéen ci élection yi moom réussir na ko loolu di laan mooy premier bi mooy organisation bi yàlla def na mu organise élection yi ñu dugg ci ci jàmm génn ci ci jàmm yàlla defal ko ci ndam loolu dañ ko ci sant yàlla ñun waa Jolof daal en tout xam naa ne euh, am nañ fuñ ko teg surtout muy parce que loolu ñu tuddee PSE di plan Sénégal émergent mën nañoo wax ni ñun ñi waa muy ah gis nañ ci suñu bopp am na ku wax léegi sama jarbaat Omar Seck Euh, ne muy ku ko xam xam ne yàgg nay gàmmu waaye bu njëkkoon ñëwoon bi jafe na lool lool lool nit ñu bari dañ daan ñëw waaye dañu daan am ay problème di réer waaye loola tey jii dañ na fi donc ñuy ñaanal monsieur le miss Aly Ngouille Ndiaye lii nga xam ne moom la def muy dem beeg dikki bi gaaw lool yàlla na la yàlla gaawale ay mbiram loolu beneen bi mooy li nga xam ne mooy électricité kenn mus na yaakaar ni muy dana am électricité yaakaar naa ne ku yeewoon maam yi tey lii na leen muy kat courant ma nga fa duñu ko gëm kon loolu ku la ko defal nga war koo gërëm sant ko ma delluwaat ci tur yi rek monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm nii nga lerale muy yàlla na ko yàlla leere say mbir ñun am nañ ci moom mbégte lool te di ñaan yàlla aussi ñu weesu fii ak moom bu loolu wéyee maa ngi sant di gërëm waa dëkk bi euh, jigéen ñi góor ñi laa waaye nag jigéen ñi particulièrement parce que gis naa liggéey bu rafet bi ñu def dëkk bi set na wecc mën nga fee dox ak tànki neen loolu jigéen ñee ko def ñu ngi leen ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen gën a ñaax rek leen continuer leen noonu la àddina noonu la nit ki ak fu mu di nekk ci àddina na set nit ku ñëw dana ko naw même bu fekkee ne dëkk bu toll ko muy la na dëkk bi set te dëkk bi set na gan ñu bari wax nañ ma ko donc ñun kontaan nañ ci yéen góor ñi aussi kontaan nañ ci ñoom ndaxte aussi ñoom i tamit participer nañ ci loolu bu ñu ci jógee ci loolu maa ngi sant di gërëm délégation yi fi nekk yépp délégation ministérielle wax nañu ko euh, monsieur le maire biram Ba bi nga xam ne bi mooy suñu maire mi ngi fi commerçant daara yépp gis nañ leen ñi ngi fi te loolu lépp mën nañu wax ne yuga juga di suñu mag nekk sa bopp ba moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant moom it ku bëgg mu mu yuga yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay wéral say cër bu loolu wéyee ñi ngi gërëm Cheikh Sawru Faye euh, su ma jarbaat wax na ko léegi gërëm na ko fi ndaxte moom it tamit bu gàmm bi yegg see fii loxoom dugal na ci ba léegi mi ngi nii toog ba léegi loxoom jógu ci di gërëm ñi nga xam ne bi yéen moo ñooy suñuy mag nekk suñuy kilifa àndoon ak moom ak suñ yeneen yi mag ci liggéey bi ba gàmmu gi yegg si fii ñooñu du leen tudd maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla hmm? euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñooñu ci tamit mag ñu baax ñooñu bu ñu ci jógee danañu sant sama xarit yi nga xam ne bi yéen nag ñoom ak man démb la woon te ñu bàyyi seen lépp at mu jot ñu di ko def ñëw fii yendoog man ànd ak man ci bés bi mën naa ci tudd ko ku ñuy wax docteur Boy Papa Birane Boy mu ngi ñëw ànd ak suñu yeneeni xarit ñuy délégation bu mag euh, Massayer Cissé ñu tuddee ko Alaaji Cissé ànd na ci biir Abdoulaye Guèye mi ngi ci Cheikh Diagne mi ngi ci mën naa xam ne sax bokku ci délégation waaye parce que mu fii la dëkk ñoo bokk def lépp te jii moom itamit am na lu bari loo xam ne def na ko fii ci gàmm ba gàmm gi yem fii donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ah sama soxna yi nga xam ne biir tey jii lu ma mën ñoo ñoo ñoo tax ma mën ko gis naa seen taxawaay sama soxna yu ñaawul yi dinaa seen taxawaay ci sama wet lu ma mën rek tey jii euh, vraiment mën naa wax ne yéen a tax maa ngi leen di gërëm di leen sant te di am mbégte lool ci ni ngeen nekkee yow aawo Cheikh as euh, euh, ajaratu astu aawo buru këram ak sarak yi nekk sa wet ni ngeen ànde neex na ma lool maa ngi leen di gërëm di ñaan yàlla loolu continuer ba seytaane bañ a dugg seen biir maa ngi ah, dafa am nag ay yóbbante yoo yoo xam ne yii euh, danaa ko wax waa cas de ñoo ma yóbbante euh, ma ko ma bëgg koo jël nag teg ko ci loxol kii nga xam ne mooy sunu papa di sunu nijaay di Sidil sàmba nekk représentant ministre bi dafa am ay yóbbante yoo xam ne yéen waa Thiès de dañ ma ko wax muy gaa ñëw bi neex na courant am na waaye am na ay gox goxaan yi ci ci ci ci ci yoo xam ne yéen buñ sañoon nii muy mel dana ko dëkk yooyu danañ ko mel mën nañu wax ran euh, ran bi nga xam ne yéen dafa jógee Mbayeen Thiès de yàgg na ñëw ñaan mu yegg si fii ci muy bu mënee continuer camp bi baax na parce que dem ak dikk bu gaaw dafa baax parce que dafay tax nit ñi gën a jege day tax dem beeg dikk bi gaaw day tax lépp loo xam ne nit ñi ngi def day gaaw donc loolu bu fekkente ne bii mën nañ ci dimbale ah dina baax loolu moom yóbbante waa CASD la bu ñu amee amee aussi courant dana ci baax. am na aussi disons foo loo xam ne nit ñi dañ ko bëgg muy fu nit ñi di fajoo parce que bu ñu seetee muy waxoon naa ko fii ci meeting bi ma fi defoon bi ñuy soutenir le monsieur le président monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ne ko muy dafa nekk dëkk boo xam ne bii mën nañu wax ne euh, carrefour la dëkk yi kaw yi mu wër bari na euh, dëkk yi ko wër bari na ñu bëggoon nag bu fekkente ne bien mën nañ cee dimbali ci poste de santé boo xam ne bien dana tax nit ñi pour dem euh, di faju ji ay daaraak yooyu ñu éviter ko dana baax lool loolu maanaam doléance la yi nga xam ne bien waa muy ñoom ñoo ma ko waxoon ak waa caste ñoo ma ko waxoon ne ma bu bés ba ñoo ko wax ministre bu ñëwee wala représentant ministre bi mu jottali ko ko keroog ci meeting bi ci sama discours Bassirou bi ma paree dama jël discours bi jox ko ko parce que loolu donc presque moom moo ci amoon euh, Bassirou Ndiaye di le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur du chef de cabinet de l'intérieur autant pour moi donc euh, yooyu yëpp euh, waxoon nañ ko di sant di gërëm Djibril Diagne di sant nag kii nga xam ne mu nekk sama wet di sunu sëriñ di sunu lépp bés bii tey mënoon a wax ne moom moo ko moom damay faral di wax ak ku ma di dégg aussi ne gàmmu gi kat du gàmmu muy du gàmmu caste waaye gàmmu sunu sëriñ la Cheikhu Omar lii mu def ni firndeel na ko parce que at mu jot mu ne moo fi teewu ñaanal ñu sëriñ bi gis nañ ñaan yi yàlla xam na ne ku ñëw fii xam ne bañ koo daalee def ak léegi at mu jot mu ne yokkute lañ ci gis donc yàlla la yàlla dëgëral say cër sunu papa Maodo nekk sunu wasila ñu ngi koy ñaanal moom itamit li ma leer mooy ne tey jii xelam yëpp ngi fii ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér fépp foo xam ne fii yow itam bëgg nga fa àgg rek yàlla la ko yàlla defal di nuyu sama nijaay alaaji ñang loolu may faral di wax naan ma eh, sama jarbaat saa yu ma gisee danga maa bàyyi ma ne ko nit du am nijaayam di ko baax parce yow ku baax la yow ci diine rek nga yëngatu ak sama cousin mii nga xam ni doomam la euh, ñëpp daal maa ngi leen di gërëm di leen sant yaakaar naa ne fàttewuma dara bu fekkee ne fàtte naa it yàlla fàttewul donc maa ngi sant di gërëm di jox nit ñi dig daje déwén yàlla nañu ko fekkee واللاتي عليهم آياته زادتهن وعلى ربهم والذي يقيم الصلاة وما رزقناهم وجعلنا منهم يستمعون القول